Touba ca kanam ñi ngi fàttali jullit ñépp rawatina taalibe yi Serigne Touba yi ñu gën a farlu ci dëkkub Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori-sori lu mu ruqi-ruqe lu mu jege-jege si biir Touba tuubaa ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soñña ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu wér ci dagg reçu 1000 francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nag nga di si boole carte membre bi. képp ku bëgg yónnee sa addiya ci Touba ca kanam mën nga télécharger application Touba ca kanam ci Play wala Apple Store am na Wave am na Orange Money sax sa carte bancaire ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo bëggee itam mën nga ko jaarale ci numéro bi 78 544 33 33 am na Wave. lépp ngir Touba gën a jëm ca kanam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi fii ci Touba la ville sainte waaw fii ci Daaru Xudoos fii ci Soura jumaa jaa ngi nii à quelques encablures gis ngeen environnement bi ni mu mel mbokk yi benn mbedd ñaari mbedd ñetti mbedd ba ñeenti mbedd loo bi yëpp dañoo dëkkaale ak ndox mi ngeen di gis ni mbokk yi ba bët sebbee ba léegi Touba ca kanam amul benn secteur boo xam ne jéemu ca di ci def kem kàttanam ngir soulager jafe-jafe yi nga xam ne bokki taalibe yi dëkk ci dëkk bii ñu ngi koy dund ci quartier yu bari yu fasantikoo xam ngeen nit ñii de dëkkaaleek ndox mi neexu leen waaye dañu xamul fu ñu jëm moo ne seen xel yépp mu ngi ci gan ñi nga xam ne dañoo war a ñëw wuy si wooteb ku tedd ki ngir santale ko boromam mbokk yi looloo tax Touba kanam amul guddi amul bëccëg waxtu wu nekk ñu ngi jóg ngir lan wàllu askan wi nga xam ne yitte woon nañ ku leen taxaw ñu bëri génn nañ waaye ñii dañoo dëkkaaleeg ndox mi ñu bëri génn nañ waaye am na ñoo xam ne xamuñ fu ñu jëm moo tax sëriñ bi ne faw ñu taxawal kërug wàllu ngir lan ñi nga xam ne mënuñoo dëkk ak ndox mi te amuñu fu ñu jëm ñu seet nuñ leen toppatoo taxawu leen mu ngi ci de waaye wàllu moom mu ngi nii lii lenn ci li muy liggéey la dañuy woo ki nga xam ne mooy Cheikh Gueye mi nga xam ne mooy responsable sous commission bi mu ñëw rek gaaral ñu li nga xam ne moom la commission wàllu bu Touba ca kanam di liggéey noor ak nawet ndax bu dul ndoxum taw mi di nap mi Serigne Cheikh moom moo jiite wàllu sëñ Cheikh na nga def ñu ngi lay jare bu baax a baax a baax naka yi tey fii ñu nekk moom mooy. Euh, Sura fii mooy Sura. bokk ci zone yi nga xamante ni bokk na ci zone yi gën a critique ci Touba ndax jafe-jafe bi am ci Sura mooy euh, ñenn ñi mënuñoo génn seen i kër dañoo obligé dëkkaale ak ndox mi. ca mu nekk loobu yaatoo yaatu ndax li ko dale fii ma taxaw ba kàmbi sore ya mboolem kër gu fi nekk rek am na ndox moo xam borom génn moo xam borom génnul waaye kër gu fi ne am na ndox soo ko doon ka ma lu mu gàtt gàtt dina mat juróomi téeméeri kër yoo xamante ni kër yëpp dafa am ndox moo tax Touba ci kanam na jógoon pour taxaw ñooñu nga xamante ne ñoo nekk ci ndox mi indi fi lu toll ci juróomi moto pompe yoo xamante ne benn bu ci nekk dina génne 300 mètres cubes par heure di ko mën di yóbbu ci réseau bi loolu mooy tax saa su tawee ba pare rek moto pompe yi dañ leen di taal bu ñu leen taalee évacuer mbedd yi ba mbedd yi jeex ñu jël moto pompe yu ndaw yi dugal ko ci biir kër yi mu mën a xëcc ci ndox yi nekk ci biir kër yi indi ko ci pompe mag bi pompe mag bi mën koo yóbbu ci réseau bi mhm. jafejafe bi fi nekk metti na trop. ñaata fan ngeen defagum fii. fii depuis mu taw premier taw ba léegi ñu ngi fi ndax fii moom boo fi xësee installé moto pompe bi boo ko jëndee rek nawet bi daa jeex bi sewete rek da ngay taal ndax boo taalu rek bu tawaatee day gën a yokk day dem ba ndox mi day nangu néegi le temps que muy nangu néegi nag di nga mën a taal pompe yi mu évacuer vite fait nga yóbbu ko ci réseau bi ba nga xamante ne bu tawaatee ndox mi day yam ci mbedd mi ma ñu dugg ci biir kër yi. mais fii soriwul jumaa ji te lii ci sama dafa mel ne daara alxuraan. waaw waaw lii daara la ndax fi mu ne nii lu tax ñuy profité sax fii dafa fixé e, fi benn moto pompe ay xale yu ndaw ñoo nekk ci biir daara ji te su ndaw fii xale yi ñoom ku ne xam nañ bu ndox mi amee rek dañuy dugg ci biir de sangoo ko def yi xeet yooyu te gis nañ ndox mi lu nekk mën na cee jógee ndax fii booy xool ñu bari seen foos yi mën mënatuñ koo vider dañuy obligé jël euh, machine courant dugal ko ci foos di ko vider ci mbedd mi boo defee xale yi nekk ci li fa moo tax bu da ngay jàkkaarloog jumaa ji gis naa rosé assainissement au usé mu mel na yàgg na fi depuis te fonctionné wul est-ce que du indi ay jafe-jafe. Euh, réseau bi moom li gën a indi jafe-jafe ci dëkk bi ci la bokk ndax dañ ko defar ba pare raccordé wuñ ko ñenn ñi ci nga xamante ne ñeneen ci dëkk bi jël seen i foos raccordé ko ci muy ball ci yeneen secteurs yi fi mu ne boo demee koñ koñ bu mel ni ndéeg Dakar am na fa benn regard boo xamante ne noor ak nawet day bëll day ball boo demee Tokor ba ci ginnaawam jàkkee Ndiouga Kébé am na fa benn canal boobu moo xam ne noonu lay def noor ak nawet day ball te eaux usées bi waral ndax nit ñi raccordé nañ ci ca fañ ko war a raccordé ca wuñ ko ndox mi obligé di génn di ball di dugg ci kër nit ñi kon nag euh, entreprise bi nga xam ne moom moo gañawoon woon bi état du Sénégal war naa wax ak moom mu ñëw finaliser liggéey bi ndax wax dëgg yàlla mi ngi lor jaam yàlla yi dëkk fii bu weesoo soro gi ñu nekk yan secteur la commission wàllu bu Touba ca kanam di yëngu te dafa mel ne noor ak nawet yéen a ngi ci terrain waaw commission wàllu nag euh, comme li nga wax rek noor ak suñu liggéey moom tout temps ñi ngi nekk ci ci ci dëkk bu sell bi di Touba di dimbali ñi nga xamante dañoo nekk ci jafe-jafe rawatina nag ci wàllum ndox mi fii may wax ak yow fi mu ne ni ngi nekk ci am nañu uh, machine yoo xamante ne mi ngi ndéeg daqaar comme ni ma ko wax léegi buntu kër Cheikh Bass Abdou Khader ca jàkkee Cheikh Bass dina foofu jàkkee Cheikh Abdou Khader yi am na moto pompe bu nekk foofu boo demee ci corniche bi fi tolloog jàkk magasin Bastagna benn moto pompe moo nga fa boo ñëwee ba uh, buntu kër sëñ Bass mu sëñ Mour bu sa Dieng foofu tamit benn moto pompe mu fa boo demee Kër Ñang am nañ fa ñu fa nekk boo nekkee Ndaamaatu guy mbind Sura ak euh, Daaru Xudos Daaru Xudos am nañ fa juróomi site comme ni amee fii fii Sura gi fi mu juróomi site lañ fi nekk yoo xam ne ñu fi liggéey jamono bi may waxee yow kanam am na lu mat ñaar fukki moto pompe yoo xamante ni yooyu yu mag la yoo xam ne dañu teg sur le place di ko dawal saa su tawee ba pare ñu dawal ko teg toftalaat yeneen ñaar fukki moto pompe yu ndaw yoo xamante ni mooy dugg ci biir kër yi di génn ak 12 euh, kilomètres raakool yoo xamante yëpp tëral nañ ko ci mbedd yi pour taxaw jullit yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci dëkk bu sell bi di dund ci jafe-jafe ci wàllum yi boo xam ne ni ay ndaw yu sawar lañ dañ leen di motive aussi ngir ñu ñëw ànd ci liggéey bi waaye li ngeen di lakk ci gasoil bëri na de mm-hmm. waaw li ñuy lakk ci gasoil bëri na parce que bu dee machine yu mag yi benn bu nekk dina lakk 30 litres gasoil par jour lay lakk machine yu mag yi machine yu ndaw yi di lakk 10 litres ñu àndal nag ñoom amuñu heure xëy boo gisee nawet bu tawee sax bu dee jour moo xam dafa taw ci ngoon gi dañu obligé fanaan ci guddi gi fanaanee liggéey ba asamaan set ñu enchaîné waat xëy continuer muy ndaw ñoo xamante ni liggéey bi Sëñ Tuubaa dong lañ ciy xool loolu moom man mi ànd ak ñoom xam naa ko ndax ku gis liggéey bi liñ ciy daj nii bu doon lu ñuy yëkkati xaalis da di ko fay nit buñ ko fayee da naan du ma ko liggéey xam nga ndaw lu nekk ci ndox mi ba guddi jot mu war a wàcc këram dem dem këram ji nga wax mu la baal ma continuer liggéey fanaan ndax bëgg a dimbali ñi nga xamante ne ñoo fi dëkk ndax wér na leen ni su tawaatee ci guddi gi ña nekk ci kër gi dañuy am problème moo tax dañuy obligé jaay seeni nelaw ñëw fanaanewaat liggéey ba asamaan set te buñ xëyee noonu la ko muy ñoo xamante ne ndaw ñu yaakaaru lañ nag di ñaan suñ tubaa leen ay xéewal baddi leen ay xéewal am ñu def am taw feexe sëriñ bi ba liñ bëgg a liggéeyal sëriñ tubaa ñu defee ko nañ ko bëggee ci barkeb sëriñ Saali lan la askan wi euh, ci askan moom chaque fois dañuy rafetlu liggéeyu tubaa ci kanam ndax ñu baree bari sooy wax ak ñoom ci tubaa ci kanam bu ñuy wax rek da ngay xam ni kii li muy wax ci la koy jëlee ndax dañuy gis gone yi li ñuy daj ci ndox mi des fois nga fekk nit mu nekk situation boo xamante ni dana jaaxle lool ci amul fenn fu mu ko mën a jooytoo mu ñëw jooytu ko ci tubaa ci kanam ñu woola nga dem këram fexe ba génn ko ci xat-xat boobu ñaan yooyu ñu ñuy ñaanal wax dëgg yàlla xeewuñu ko ñu ngi koy jot te ndaw ñi tamit xam nañ loolu ba tax loo leen wax ci lu mel noonu rek dañuy bàyyi seen itte yëpp ñëw fas yéene cee liggéeyal sëñ Touba <laughs> jërëjëf jërëjëf Baye Cheikh kon sëriñ ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo Euh, commission wàlloo ngi nii tur bi dafa wuyu boromam Touba ca kanam dafa taxawal commission wallu su commission wallu ngir xetali jaam yi ci waxtu nekk di ànd ak ay ndaw yu sawar lii nag bu ko Touba ca kanam mënee yàlla ak seen ñaar téeméer tax wàccaayu màggal gi amul benn secteur boo xam ne Touba ca kanam defu ca intervention te cey bu ko ci deful woon mbokk yi ay moto pomp yu tàkk guddi di tàkk bëccëg saa bu waame yu ñëwee machine yi du fay ay ndaw yoo xam ne du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëcëg ngir lan taxawu mbokk taalibe yi waaye it bàyyi xel ñi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si kon mbokk yi Touba ca kanam dëgg-dëgg ñàkk ca tabal sa ñaari téeméer warul de mbokk yi ndax ñiikat képp ku leen xettali xamal ne xettali nga ñi nga xam ne ñoo war a teeru ak teral ganu Serigne Bamba yi maa ngi interpellé nag l'état du Sénégal am na ñaari projet yoo xam ne mu ngi indi gàllankoor ci dëkk bi benn bi ci mbalit mi la benn bi ci eaux usées la mooy centre d'enfouissement bi nga xam ne 2016 ba tey mënuñu fexe ba mu noppi waaye mbokk yi réseau bi nga xam ne dañ ko war a drainer mu dem ba Mbacké muy réseau eaux usées yi kër gu nekk ñu laaj la 35000 francs nga branché ko fa te taxul ñu branché réseau bi fa nga xam ne mooy bout de vinage bu nekk ca Mbacké muy juraat yeneen tolof tolof ci biir dëkk bu sell bii di Touba bu weesoo nii ñu ko liggéeyee mu nekk ci digg mbedd yi di yàq ay oto waaye refoulement yi mu ngi lor doomu aadama yi kon monsieur le ministre de l'assainissement xamal ne projet bii di projet eaux usées yi nekk ci dëkk bu sell bi di Touba mu ngi indiwaat beneen problème bu weesoo ndoxu nawet bi waaye centre d'enfouissement bi aussi mu ngi ci waaye mbokk yi nañu sant te gërëm commission hydraulique waaye nañ sant te gërëm sous commission wàllu ci njiital Serigne Cheikh Gueye waaye nañ jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñooy joxe seen i ñaari téeméer ci Touba ca kanam ndax kat peccum liir bu neexee nday jàttee ca wagga ya secteur yi ngeen gis Touba ca kanam nekk ca bëri na bëriwul yaatu na de ba ci éclairage public ba ci assainissement ba ci santé ba ci éducation ak ay daara tànneef yoo xam ne dañ koy implanté ci quartier yi jël xale yi ñuy jàng te duñu fay dara ñu sosal leen dabal daara utal leen ay bool yu bees taq ñu am ay ndey daara yoo xam ne dong bu nekk ak boolam sa xel du nekk ci leneen lu dul jàng kon mbokk yi laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam Touba ca kanam mi ngi fàttale jullit ñépp rawatina taalibe yi Serigne Touba yi ñu gën a farlu ci dëkku Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori-sori lu mu ruqi-ruqe lu mu jege-jege si biir Touba Touba ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soñña ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu wér ci dagg reçu 1000 francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nag nga di si boole carte membre bi képp ku bëgg yónnee sa addiya ci Touba ca kanam mën nga télécharger application Touba ca kanam ci Play wala Apple Store am na Wave am na Orange Money sax sa carte bancaire ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo bëggee itam mën nga ko jaaralee ci numéro bi 78 544 33 33 am na Wave am na orange money lépp ngir tuubaa gën a jëm ca kanam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool